asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaanu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ci ñu bokk ak euh, valeur yi ñu bokk kàddu yi ma leen di bëgg a dégtal jéem naa ko gëstu feneen ci fu ma ko mën a télécharger mënoon ko ko compiler boole kook samay wax waaye gisuma ko kon ma bàyyi leen ngeen teewlu ko ñu soog a dellu ci faram-fàcce gi. li am mooy eh, li xewoon ci jamono boo boo remonté histoire xam nga dafa am benn bindkat bu ñuy tuddee Victor Hugo. Eh, Victor Hugo benn tubaab la woon boo xam ne bii français la woon boo xam ne bii ku mënoon a bind la ku rafet bind la daanaka mën nga xam ne littéraire la philosophe la penseur la. lu nekk la daal ci wàllu xam-xam moom bu la bindalee da ngay defe ne Victor Hugo dañ koy jàngale sax am na ay mbedd yoo xam ne yii euh, dañ ko ko tuddee sax ci réewu réew yi ba ci réewu Afrique yi am na ñoo xam ni école tuddee nañ ko Victor Hugo Victor Hugo dafa mas a wax ne nañ ko jox alquran mu jàng ko ñu jox ko ko mu jàng fa ñetti fan def taf gi ñu jox ko làkk yu bëree bëri dégg na ko mu def tafasir yi xool interprétation yi xool historique alquran xool làkk arab bi ni mu ci demee yépp mu def ñu defal ko tarjama bi mu xool xoolaat dem ba dem ba xuus ci sababu nusuul yi xool histoire u prophètes yi ñëw ba ci la Coran ak comme ni mu ko defee woon ci bi mu pare ñu ne ko loo xam ci alquran mu ne marsa mu sante la rek mu ne alquran daal du dara dul marsa mu sante rek maanaam euh, stratégie sociale la rek boo xam ne bii kenn ku nekk ak ni ngay fexe ba génn ci ndegam Victor Hugo loolu la wax te moom gëmul yàlla astafurlah en tout cas bu gëmee yàlla gëmul yonent bi parce que defe naa ni ci diine masixiyana la bokk mu ne alquran du dara lu dul marché mu sante mais ñi nga xam ne ñoo di ay julit yi nekkoon ci wetam bin pare dana ko nangul nan la sa fikra nangul nañ la sa gis-gis te pourtant alquran la attaqué foofu léegi nag ki ñëw indi leçon wala mu indi benn dërsam wala lu mu ko mën a defee mu indi teg ko ci groupe bi amul kenn koo xam ne kii man ngaa dogu ne li ñu waxal yonent bi lépp dëgg la yëpp dëgg la yi ci gën a wóor sax pour ñu pour ñu jàpp loolu ak ne la waat ko da ngay xaw a da ngay xaw a dellu ginnaaw lu dul alquranul karim kon kon nit ki fi muy jëlee source am muy man muy eh, almasiix wala muy papal wala muy kenn kooko mën na andi mën na andi leçon teg ko ci biir groupe bi mais dara wóoru ko à cent pour cent que ne li muy wax noonu la ko li muy wax fi mu ko jëlee foofa dëgg la fu dul ah, te alxuraan rek moo moo fiy dëgg donc kon yaakaar naa ne affaire bi jarul ay eh, comme neex na nga ne du ma déglu diw comme neex nga ne man du ma déglu Maodo Faye loolu ça n'engage que celui qui le dit kooku moom ki ko wax la engagé amul benn problème mais comme dañoo nekk ci ëpp xam-xam te li nga xam ne moo mooy mbir te mbir mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lam njëkkoon a indi ba ko ba ko arab yi xamul mais dañ ko weddi ne ko li moom li moom mënuñu ko dégg ci suñu nopp yi ndax xamuñu ko. salaam. asalaamaaleykum kon mbokk yi dégg ngeen kàddu yi moom mi nga xam ni mooy waxi tudd na turu boppam. ci biir wax ji te yaakaar naa ne baat bi xàmmee ngeen ko benn journaliste la bu nekk ci eh, télévision bu ñuy wax 2STV euh, yaakaar naa nag ci groupe la ko doon waxe kon lu ñuy wax lu jóge ci groupe la kàddu yi nga xam ne nag moom la wax mel na nag kàddu la yu garaaw a garaaw a garaaw yoo xam ni moom mi ko wax sax pesewul gravité bi ndax nag su fekkee ne dañu nekk ci seen groupe mu bëgg a saxal ne kenn ku ne am nga droit wax sa xalaat indi misaalu Victor Hugo wax ci loo xam ne lii amul source ndax nee na bu ñu remonté ci histoire fan ci histoire ana texam ana lu histoire boobu muy nettali fan la xewee kan moo ko nettali loolu amul source amul cëslaay Victor Hugo moom muy wax naan philosophe la du philosophe moom poète la da daan bind ay woy euh, lu mu daan nettali sax ci ay woy la ko daan bind li ci ëpp kii téere la bu ñuy wax Les Misérables Victor Hugo moo ko bind bii da ko wesar mbind mu yaatu la téere bu yaatu la bii les contemplation la tudd ba tey moom itam Victor Hugo moo ko bind waaye bi nga xam ni moo ma ci gën a yitteel mooy la légende des siècles la légende des siècles téere bi boo ci demee ci page boo xam ne bii mooy page cent foofa bañ nañ ko ba titre chapitre boobu wala bokk bunt boobu l'islam la tudd mooy troisième chapitre bi bunt bu njëkk ba l'an neuf de l'hégire la la neuf de l'Égir Victor Hugo 1902 1802 la juddu ca jooje jamono muy wax moom nee na ñetti fan lañ ko jox alxuraan mu jàng ko ki mokkal alxuraan dëgg dëggi mokkal su ko doon jàng te bàyyiwul mën na xëy suba ba midi ba midi wala tisbaar jëm tàkkusaan soog ko àggale ci lecture nag boo xam ne bi bu rattax lool waaye nag du doon njàngum taxaw di xalaat njàngum taxaw di gëstu njàngum taxaw di seet ak di seetantal nee na tafaasir yi yër na ko xuus sax la wax baatu xuus nee na gëstu na daal lu ñu war a gëstu ci alxuraan ci ñetti fan ak a néewub gëstu ci jooju jamono gëmuma ni alquran bindoon nañ ko nii ñu ko defee ay traduction ci français ba Victor Hugo mën caa xam dara te Victor Hugo dégguloon arab am na benn waay bu ko daan jox orientaliste la kuñ daan wax euh, Guillaume Pottier moom it mille huit cent mille six cent la ca moom la daan tibbe moom moom donte kooka sax du jamono ci kooka la daan tibbe ay xeeti njàngim yi mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi xam ko ci lislaam ba di ko wax presque ci ci kooka la ko xaw a jëlee jooju jamono traduction amul kon wax ji moom weddi na boppam ci lu gaaw a gaaw nee na àgg na ba ci xam sababu nuzuul yi ah Maodo ragalal yàlla nag ci mbir mi seetal sa diggante digganteeg sa boroom xool sa tëraayu bàmmeel bii di ñëw ëllëg nga moytu nag alkaande dal la parce que foowe gi ngay foowe diine ji moom mi ngi bëgg ëpp Maodo yow ba nga rawee ñëpp rek man nga ci man ba ma rawee nga fi bàyyi ñëpp man képp nga fi raw ba nga rawee ba pare weesoo ci keneen nga ne alxuraan marché muusante la moom la waa ji wax yow yaa jàppe alxuraan marché muusante ndax moom waxu ko li mu wax ci loolu lépp li mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa li may wax maanaam sa yaram day daw boo dikkee di jàng li may wax fii ku ko ku ko ku ko jàngulit soo demee sax ci internet boo ko tàppee ñu jox la ko la légende des siècles la chapitre bi lislaam la bi ci topp l'an neuf de l'hégire soo ko tàppee ci internet mu génneel la lii may wax ku ko tàppee ci internet mu génneel la ko nga liir ko da nga yéemu kii kàddu yi mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, muy kàddu yoo xam ne yii ku ko dégg di jullit sax mi ngi nettali bay nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy toll ci mujjantalug dundam ak namu bindoo ak melokaay ba ak kàddu yu rafet ya nettali na ci yoo xam ne yii soo demee ci téere siire yi danga ko cay fekk nga ne pourtant moom alxuraan la attaqué ku alxuraan ku attaqué alxuraan yaakaar naa ne yow Maodo waroo ko def référence nga ne moom gëmul yonent bi loola ci wér lan moo la ci wér en tout cas ku yër téere bii ma leen di wax gis la muy wax ci yonent bi doone soo ne gëmu koot doo mën a wax ne da koo bañ doo mën a wax ne da koo weddi ndax li muy saxal ci yonent bi sallallahu alayhi ci téere bi nit boo ko gëmul doo ko ci saxal nga ne yi gën yi nga xam ni moom la ñuy wax ci ci ci lu yonent bi li ñu nettali ci yonent bi kenn mënu cee dogu déedéet boroom xam-xam yu la ëpp xam-xam fuuf mën la fuuf ñoom ñoo waajal loolu ba mu ba mu leer démb tey soog a ñëw ba nga xam ni diine ji dara lëntatu ci dara lëntul ci diine ji li wóor ci diine ji fa mu jóge mënee su ko weesu ci wóoral ëttu xam-xam nga wax nga ni li ngeen nekk ëttu xam-xam groupe groupe boo xam ne bii ña ca nekk maa ngi ñema yoo tolloog àlluwa foofa mënee su ko tuddee ëttub xam-xam la waroon mooy su ngeen nekkee ci seenub tem ngeen woo boroom xam-xam boo xam ni bii kenn nattablewul xam-xamam bu ngeen waxee seen wax yi dof ba noppi moom mu jubbanti leen loolu moo doon tane ca gurub ba Maodo faw nga rafetal saw defin rafetal saw defin nag mooy dellu jàngiwaat nag gën di gëstu nag képp ku yem ca la nga xam kenn sutatu la xam-xam waaye nag booy dugg ci yoo xam ni yii kenn xamul lu mu doon doo jóg ci di njuum juum njuumte yu mel nii lii nga def daal moom doy dal alquran la doy dal diine la doy dal xadiis la doy dal yonent bi sallallahu alayhi te yooyu doxul danga koy moytu nag parce que nag fii bi ngay jàng di yër am na ñeneen ñoo xam ne ña ngay def lu ko gën a foor fuuf li nga xam doyul pour di wax ci waxu diine li la war mooy noppi noppi ndax saa yoo waxee rek wax musiba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.